ilimaan bu waxee asalaamaaleykum te fekk na julli ko matut bu fekkee dafa wax asalaamaaleykum ngir juum rek moom te daldi jóg mottali julli ga ndegam xam na ne sëmbalam bi njuumte la du aajow muy xaar kenn ko ca wax dara su waxee nag asalaamaaleykum joo xam ne dafa jàppan ne julli ko mat na te nag ñu ànd ak moom di julli sàbbaal ko di ko won ne ko julli gi kat matut kon na seet su fekkee lañ ko sàbbaal ne ko matut xam na ne moo dëgg mu daldi mottali la ca manki te sujjóot bax du salaam ndax yokk na julli gi ci sëlmal ga mu sëlmal te fekkutoon julli ga mat bañ ko sàbbaale di ko won ne ko julli gi matul nag su fekkee ne dafa déng déngi mënta dogu ci boo xam dëgg banki na mënta dogu ci dañoo juum demat na na seet ñaar ñu maandu mu laaj leen ba xam luñ koy wax la ko ñaar ñu maandu ñu wax bu dee jàpp na ni moo am faaw loolu lay def bu dee sikki sàkk itam loolaa am wala déetit ba tey la ko ñaar ñu maandu ña wax lay def mu des nag ñaar ñu maandu ña xibaar nañ ko waaye lañ ko wax moom safaan ba la jàpp moo ñaar ña maan dañ ko ne julli gi matut nag mu jàpp ne mat na mu nekkoon kon mën naa doyloo la mu jàpp dagam dogu na ne mat na rek moom na jàpp ne mat na ñaar ñu maandu ñooñee nag ak ku mel ne ñoom nga xam ne dañoo jàpp ne julli gi matut ñoom faaw ñu war a mottali li mujj wax nak moy bu fekkoon ne ñu bare bare ñoo maase ci julli gi matut matut bu rek ñaar ñu manu ña ñoo wax ni julli gi matut mbooloo mépp mbaa ña ëpp ca mbooloo ma ñoko wax ne ko julli gi matut kon faaw ak lu mën di japp ci matna matna nako bayyi ta fekk leen japp ne matut daldi motali ndax mbolo mepp ba ñepp ci mbolo ma ñoo joom men mom rek mu ñàkk joom dafa junj fe nak la xewon ci digënté yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ak sahaba bu ñu wax dul yadayni yonante bi dafa jullé woon ñaara rakka dal sulmal dul ne ko da nga joom am na nga wañi noné mu ak yonante bi nak lañu wané né ñi and ak iliman rawante na ñaar ñu maandu ñooñee su fekkee dañoo sàbbaal sàbbaal ilimaan te mënta xam lañ koy sàbbaal mën nañoo wax ak moom wax ju yem rek ngir defar julli ga te bañ a ëppal